waaw dafa am benn dëkkandoom boo xam ne daf ko proposé mbëggeel treize ans hmm. xale bi ni ko man am naa ku may bëgganteel treize ans kooku ne kon naa doon samag mag hmm. ñu doxale diggante mag ak rakk ba benn jour xale bi war a dem place am place su magam waa ji ne ko jaaral sama kër ma jox la benn tissu nga ñawaaleel ma ko xale bi ci confiance bi dem alaaji ba mu demee ca kër ga kenn nekku fa nee na ci la ko ba ma xëyee ca lal ba oh, oh, oh. forcé ko séq ak moom. 13 ans. 13 ba mu demee bay jamono gisul mbaax mu dellu ca waa ji ne ko dama ëmb te yaa ma ëmbal mu ne ko boo ma ko waxatee ma sànq la. <laughs> sànq boobu nag mooy tës bi. Hmm. ndax xale bi dafa mel ni waa ji nag mujj na ko traumatisé. ndax dox na di dem marché ba yàgg benn waaye intercepté ko jox ko loxo ñu gëlëmal ko pompe ko indi dakaar ci benn bâtiment tëj. Hmm? Ah benn meer moo ko fekk génnee xale ba toog ca buntu jumaa ja ca la ko benn mbokkam gis yóbbu ko ci beneen mbokkam mu fexe ba yóbbu ko jébbal ko ay mbokkam. Hmm. ba ñu yóbboo hôpital ci lañ leen xamal ne effectivement xale bi dafa ëmb mi ngi ci deux mois et quelque. mais alaaji problème bi mooy waa ji ko def loolu lépp. Hmm. mi ngi doxantu. ca dëkk ba. kenn jàpp ko. entendre nañ ko bàyyi ko. te mu ëmbal ab mineur boo xam ne 13 ans la am te li ci gën a grave mooy mineur bi nee na daf ko force relation même bu dul woon forcer viol la da ko forcer ba pare kidnappé ko andi ko Dakar ci loo xam ne nag mën nañu wax ne nee naan àndut ak moom ba muy ñëw. àndut ak moom moom da ko boole chauffeur bi rek ni ko yóbbul ma ko Dakar. Ah. Hmm. ñu deglu ko xaadim. ayca jàngee damaa jàng métier sama place mag. Mm-hmm. ma jàngee métier nag foofu la ma daan gisee. Mm-hmm. atelier bi ñu deen def foofu lay fréquenté. Mm-hmm. daan na ma doxaan na ma ma lànk. bi ma ma lànk tamit terewul ba léegi daf may topp. fu ma jëm damaa laan ba fekk ma nekk am ko ma nekkal joxe ak moom ay kàddu ba pare. mënuma duggaat ci leneen. léegi nag bi ma doxaanee mu jàppee ma comme sama comme mag rek di ñëw sama place mag jàppee ma comme mag. loolu la wax foofu. jàpp ma comme bañee quoi jàpp ma comme rak dama laa bëgg nga bañ loolu lu mu la wax foofu moom. moom bi mu ñëw dama bëgg ma bañ waxuma dara nag waaye dafa ñëw wëlbatiku ah, ànd ak man jàpp ma comme mag mm-hmm. di ma xelal di ma wax ba te mu ne benn jour mu ne ma booy gont ci jaaral sama kër nga yóbbaale ma sama yére defaral ma na ko waaw après ma jaari seen kër fekkuma kenn seen kër sax moom dong laa fa fekk ma ko fekkee ma dugg sa néeg bi ma duggee sa néeg bi mu ma am yére bi si laa jëre si la ma xëccee sànni ma si lal bi te néeg bi ma yuuxu mu ne ma boo yuuxoo dinaa la rey te na la nee na sa bopp ngay siiwal force ma ba tëddee ma bi ma tëddee nag si la ma bàyyi ma ñibbi bi ma ñibbee nag ci laa ci mu mujjee bi weer bi dee si laa mujjee gi samay réegal wax naa ko ko nag bi ma ko waxee moom doon ceetal fan yële ma man damay ceetal te lu may ëmb bu ma ko waxaat ma ne ko yaa ma ëmbal ma sama yaay laajee dinaa ko wax mu ne ma ëmbalu ma la bu ma ko waxaat te boo ma ko waxaatee danga xam loolu si fekk rek na leen ne yaa ko teg sa bopp ñi def noonu def noonu ba ëmb bi commencé lii feeñ ma waxaat ko ko moom mu xamal ma ne man boo nangoo de mën naa laa luyeel Dakar man ko man dem ma Dakar fii laay toog sama wetu yaay musuma fii laa xam mu bàyyi ma noonu hmm. bi ma yóbbu na daf ma forcé. léegi am bëgg fa waxoo ko sa yaak sa papa. waxuma ko ndax moom daf maa menacé daf maa menacé moom. maa menacé ne ma bo koo tax a wax ko xamale naa la rey te ma la reyee du mujj fenn. Hmm. te xam dëgg man na maa rey ndax ndax ma yóbbu tamit kenn gisuma hmm. maa moom dong la woon. léegi bi nga xëy yow nga xëy. léegi ma xëy mu bàyyi ma noonu bàyyi ma noonu. léegi ma xëy ba talaata. ma war a dem jëli dugg sama yaay. bi may jëli dugg yoonu marché baa ngi nii fi soriwut bi hmm. may dem ñëpp séen nañ ma hmm. ma dajeeg benn waaji sol bolog bu weex hmm. ko kilifa la sax mu jox ma loxo nuyu ma maa ngi teg saw bi ma nuyoo nag man xamatuma fu ma nekk ci laa tege saw marché bi mu ma fekk ma poste police ba ci laa toppee si moom mu yóbbu ma poste waaye ma fekkee ma ko fekkee poste police ba di may gëlëm gëlëm man xam naa ko te tey su ma su ma yóbbuwoon te gisuma ko dinaa xam ne moo ma yóbbu ndax moo menacé woon na ma dinaa la sànni Dakar léegi bi ma ko xoolee laa ne ko laa xam ne laa xam ne moom la moo waaji la. ki waaji la ki ki ki ki ma tëddee. ki ma tëddee waaw. Mhm. ki nga xam ne moom ma tëddee ba ma am bu te nu ngu see feeñ. Mhm. ba pare nag nungu maa jox sax turam. Mhm. moom daf ma ne dañ maa ne Idrissa Seck waaye Modou Seck rek laa tudd. léegi ma duggee foofu. menacé waat na ma tamit avant ñu nee na ma maa ngi la yóbbu Dakar boo yeggee Dakar de na la leen boo boo yeggee ba yóbbu la sa néeg ba la lu ku la fa fekk bu yaboo nga ne ko sama yaay dama génn sama papa gaañu. Mm-hmm. sama yaay ma ëmb sama yaay génn ma. Mm-hmm. boo ñëwaatee xamee naa la ray koñ ba. Mm-hmm. moo tax ma demee xa bi ma yóbboo nag si la ma pompé nag xamatuma fu ma nekk. moom moom demul Dakar moom xam nga dégg naa porte oto bi ma xam ne génn na moom fu ma ko ba ma ko gisee la xam ma man jàllaaba bu weex la sol léegi ma yewoo man maa yewoo si benn immeuble ab itaas si kaw man mosuma faa xaw ma fa sax ba fa demee. benn meer moom fa yee si laa ne bëreet yeew mu nekk benn néeg bi am salle beeg lépp mm. ci ma meer bi ne yow loo fiy def xale bi ma ne ko man de fii xaw ma fi mooy fan mu ne ma fii la Dakar dañ koy luyee mm. bu fekkee amoo luyaas mm. bu fekkee luyoo fi génnal sa jàkka ja nga toog fa sa jàkka ja sa laa génn bi ma sa jàkka ja foofu laa toog di jooy am na ñu la fa fekk. foofu laa toog di jooy. foofa xam xam am na ñoo wala. foofu Dakar xaw ma fa kenn. non biir néeg ba nga fa nekkee am na ñu la fa. nekk néeg ba damaa yeew rek yem si ma yee sax am meer sax moom itam meer ba xaw ma toog di jooy sa jàkka jooy sa la ba ne dama toog fa toog di jooy ba ku yóbbu añ fekk ma fa. ba ma fa fekkee ne ma yo xale bi looy jooy ma ne ko dara mun ma yaa ngi jooy te kay dara la. Mm. ma ne ko doon dara mun ma lan la ma ne ko fii fan la mun ma fii Dakar la. ñoom mm. lu la fi indi ma ne ko ma nii laa gis mun na ma nan dem fee te mère bi am na sama sama benn mbokk bu fa nekk. bi ma yóbboo ci ba léegi man nangu maa ñëwaat xam moom dafa maa waxoon dama boo fi ñëwaatee ma rey la la ma xamal te ma ñëwaatoon tamit te lii wut tamit mën na maa rey. Mm. ndax moom loolu la ma waxoon naa ñoo bokk benn koñ chaque moom may gis. léegi moom dama la yóbbuwaat am na ko dem ma mm. koñ bi mënuma faa demaat man ma dem naa la yóbbu naa la yóbbu ba sa loxo yaay bu fekkee sa yaay la génne man fekkee nu too dem koñ bi ndaxte ëmb bi mm. naa xam dara mën na ko mën demaatuma ci dama bàyyi saar forcé nag indi ma suñu kër waaye bu ma indee ba léegi mënumaa tëdd ba nelaw sax. ndax loolu ko mom dama ma dama lay ray mhm. yag na ma ray léegi mom mom ñew na seen kër fi mas na la fi seet si mooy ki nga ki la woon këram. mom mosut a ñëw suñu kër. yow mas nga bo ben ñaata yon nga dem. mosuma man seen kër benn yoon boobu ma tëddee la fa musa dem. mo mhm. fa demee la ma tëdd dama mosuma xam goor mom ama mu lay ama mu lay yobbu donc fekkoon na yow ngeen and fekk mu tëdd ma bu ma ëmb ba wax ko umbu bi. mom mhm, mu bañ li ma ko wax a tax nag. léegi naa tax mu ne ma koñ bi mënoo du ma la fi bàyyi. que démb bi ma ko waxee sax nanguwuma de yóbbeewu ma sama coobare ndax fii laa sangu ba set dem sama yaay di jëli ndugg sax su demee jëli ndugg man. Mm-hmm. foofu nag la ma forcé nag boole maa ko ku ma nuyu nag xamul lu mu nuyoo. sa yaay musul musul la ko laaj yow musul la laaj comme ni nga mel yooyu musul la ko laaj tey musul ko wax. sama yaay musuma kaa laaj. Mm-hmm. musuma koo wax kenn. Mm-hmm. musuma kaa wax kenn xamoon daf maa menacé woon ba léegi nii sax ñu ma wax dara. li ma ma da doon moom li ma wax te koñ bi bari na ñun fii rey samay morom yoo xam ne ñu ngi leen fii rey te du mujj fenn mm. moo tax nangu maa wax kenn leen mm. ba léegi damay tëdd rek mm. du ma nangoo wax kenn leen te li mu wax tamit bu ko xam mu def ko ndax nam def ba yóbbu ma na ko def noonu ba dem si sëriñ ba mu ray ma te duna xam man loolu rek laa ragal moo tax jamono yi nga yëgam musuma dem man hôpital musuma faa dem. jour bi nga ñëwee rek. jour ma ñëwee rek ma yóbbu hôpital. lañ soog a xam ne say bok soog a xam ne yow boobu da nga am. Mhm. waaye ma hôpital musuma faa dem. musuma bu ma juddoo ba léegi musuma dem hôpital. bu ma waxee sama dëgg musuma dem hôpital. kor bu ma ñëwee rek lan ma yóbbu hôpital. Mhm. ñu ne. monsieur bi xamal leen ne kii dafa ëmb. Mhm. wante man musuma dem hôpital. ëmb bi daal jiitu na yóbbu. daf may menace man mënuma kaa xool sax. mënuma ma moom presse bee ñu nekk sax mënuma faa bokk ak moom nekk. ndax li mu wax xam naa ne dina ko ndax capable na ko. moom nee na ma dina ma rey te yàgg naa rey. lu tax nga xam ko damaa xam yàgg na maa rey yàgg moom mu ci boobu moo ne yàgg na maa te ku ma rey doo si feeñ te bu ma la reyee lii su ma si muccee dinaa la rey ndax yàgg na maa ok c'est bon loolu la ma xamal man daal ma amoon ku ma dimba jàppale ma si daal moom. yàlla ndax dina ma nee dina ma rey te xam naa bu ko përi tëjul dina ma rey përi fi mu awoon moom wi awul yoonu tëj ko. Mhm. ku ma si dimbali woon nag moom mu dimbali ma man ma bu ko tëjul bu ko tëjul mënu maa bokk ak bi daal moom. Mhm. mën jàppale muy yoon ak ku mu mën di ok c'est bon. ma si yokk li papaam wax. Mhm. mooy vérité bi. ndax na moom moo ko kidnappé menacé ko moor. tëdd ak mu am deux mois avant koor xale bi wokkul dara mu ragal mu ne ko damay rey ndax damay rey sa moroom moom du faram yorul numéro am yorul daraam mais ménagé na ko ba fu mu ko woore xale bi daw wuyu ji ko waaw bi loolu amee moom munoon na ko ba fii mais mu dem sànni ko Dakar xale bi nee na bi muy jóge fii mardi la fi jóge yaayam toog di ñaag yaayam ñoo toog même palace marché ñi di ko xaar di ko xaar di ko xaar ba 11h gisuma ko ñu ànd ñëw fekk ñu ko fi. ñu wër ko mardi ba jeudi Baye Sall doog ko for Dakar. foru ko sax dañ ko ko. moom moom diggante bi mu réeré. ñaata kii la app bi tey. tey la tey la une semaine mardi ba mardi. léegi léegi moom ëmb bi kañ ngeen kañ ngeen ko yëg ci moom. bin bi mu ñëwee alxames man ma yóbbu ko hôpital. ëmb bi ñaata moo la. ëmb bi nee na waan na am na deux am na deux mois. waaw kon foofu nu mu demee noonu leeralal rek. léegi moom xam nga comme moom xam nga ñëw nga wax foofu. waaw leeralal foofu rek mu la. da ko tëddee ba pare da ko siif ba pare. moom daa ànd na moom. waaw ba moom moom moom moom moom xale bu góor bi. Mm-hmm. xam na ne ndaw si dara dal na ko. Mm-hmm. mu ne ko carrément dama lay sànni ji dakaar mm-hmm. moom moom xale bi nee na waa ji wax na ko dama lay sànni ji Dakar. léegi si diggante boobu la moom waxu ko ñu avant mu koy wax léegi moom mu dem sànni ko Dakar. Mm-hmm. léegi non non dañ doon génn wala lu xew. moom du faram. avant moom mu koy police woon faru xale bi. waa léegi comme ni nga waxee ni avant ñu moom moom ni ni nga waxee avant ñu koy kidnappé di ko yóbbu. waaw moom jër na lor. léegi bi ngeen ñëwee ngeen soog ko xam ne moom. voilà waaw parce que sequ ñoon dara avant boobu. mais moom du faram. kidnap la waaw moom du faram. faram pëlis woo na ko mm. faru xale bi ñëwoon fii ba ba ñaan ñu ko ñun ba nu wax suñu waxi jullit mm. moom pëlis woo na ko ba wax li muy wax mm. moom du faram nee na moom tey la ko gën a bëgg ndax moom mooy génn te yëgutoon loolu yëpp waaw parce que moom dafa jabar la bëggoon kii nag moom du faram du dara da koo woo doon ménagé ko ba nu yëpp fi tam ko woo mu fekk fa mais sànni Dakar bi man moo ma jaaxal. waaw mais est-ce que faram bi ndax faram bi amul ko wala kii ko yóbbu ko ci ambal. Ah, kii ko yóbbu. faram waat na police. dafa mel ni génnoon nañu avant. parce que nga diggante mois. génn ah? te léegi bi mu ko yóbbu après yéen bi ngeen ñëwee ngeen soog a xam. voilà mais génnuñu tamit. Mhm. ndax ndaw si xale bu jigéen bi faram ñëw na fi ban wax waxi waxi jullit. Mhm. ba faru ni moom day wuti bu amee ñëw ñu may ko. Mhm. te faru yi police woo ko. ba enquête ko moom ba mu set. kii moo ko ki kidnappé bi muy tëdd moom da ko da ko da koo teg ba waaw bu njëkk ba avant koy yóbbu waaw avant mu koy yóbbu da koo da koo menacé ni ko dama lay rey mm-hmm. waaw xale bi fi mu nii bu gisee waa ji day daw di yuux mm-hmm. ndax rey bi. Mm-hmm. mais boobu moom mooy aussi lu tax waxu leen ko. waaw moom xam naa rek rey bi moo tax. waaw rey bi xam naa rey bi mu ci tudd. moo tax ndax fi mu nii bi mu demee Dakar ñu for ko. dani moom du ñëw ndax nee na bu ko gisaatee si koñ bi da koy rey. après te moom nee na gis na nit ñi dee te xamul leen rey du ñëw mu koy rey. mais xam nga loolu ñaaw na. te boobu ba tey mardi jeudi ba tey ñu ngi dem police mm. démb la ñu jox rendez-vous ne nañ kooku mm. enquête bi ñun ñu laaj nañ ko ba pare nee nañ saa moom jaratul muy wax. Mm. léegi nee nañ chef bi décidé muy wax. mais boobu ba tey jeudi ba tey. moom ñaata at la. moom fukki at ak ñeent. fukki at ak ñeent waaw moom la am. loo ci yokk. li ma si yokk mooy xanaa ñu dimbale ñu rek. bu dee yoon moom lu mu wax. moom li ñu li yoon wax yëpp ginnaaw laaj nañ ko góor ki laaj ko jigéen ki li yoon tëral rek ñu dimbale si. mu continuer. ma ne noonu laa bëgg rek yoon rek def li mu li mu li mu laaj. ñu continuer. moom daal moom waxu leen daal mës na génn moom waxu leen lan. déedéet moom moom du faram moom. Mm-hmm. waaw du faram moom. moom moom xanaa ménage rek. Mm-hmm. mais du faram waa ménage ba ànd ak moom. waaw ba pare doo koo jël yóbbu. Mm-hmm. mais moom du faram moom. far kii bi police bi woo na ko ba mu ñëw. ndax far moom carrément jabar la waxoon bi mu ñëwee fii tam fekk na fi yaayam. ñu waxtaan ñu ñëpp mu ne waa day liggéey day dem ay Kolda yooyu di ñëw. léegi moom koro ben ko laajee kuy safar wax na ko ñu woo far bi far bi ñëw na ñëw na ba wax moom ne tey sax la ko gën a bëgg bu coow li dalee nee ku ko may mu jël mais nag ki moom kii ko ki kidnappé ba def ko lu ñaaw lii moom lañ bëgg a lijjanti mm. waaw ñun daal loolu loolu lañ si lijjanti moom